rajo bi sit ñëpp kenn ku ci nekk léegi nii maa ngi déglu Oustaz Oustaz Mouhamed Mbaye ak ñoom Adja mënuñoo wax mais métti na mais il faut na ñu xam ni kan moo ci topp c'est ça problème heure bi démb mi ngi dund nit ñi kan la fan la nan la looloo jar a bàyyi xel asalaamaaleykum wa rahmatullah kon jàpp loolu rek muy ndigal yoo xam ne dañ ko jox ca gaay mi ngi noonu gis ngeen euh, kàddu yi ñu jàpp ni euh, jamono yi ñu toll nii ñu ngi fi nga xamante mooy kër Bougane Gueye Dany levée du corps bi fas yéene amee foofu nga xamante ne moom mooy sa Ouest Foire mooy góor ñi ñoo koy gunge ca këru dëgg ga kon dañuy def mbaas rek ñu utal leen ñu xewlu ba noppi bu nu noppee ba noppi jigéen ñoom fii la ñuy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 kii bi agsi day confirmer rek li ma doon wax. Cheikh bu ma tax teewee yoonu murit wépp ñëw na fii kii tey bu ñëwee bu sant Mbàkke bu sant Mbàkke boo sax ñëpp ñëw na yoon wi ñëw na sëñ baaraay maamam sëñ basat sëñ xaadim awa ba meññ ko mi ngi noonu di nuyoo xaritam soppeem taalibe sëriñ Tuubaa ñu bokk daal fu doos ñoom ñaar lii rek doy na sëkk ci dama doon wax sëñ Basiru Mbàkke bismillah Mbàkke diisoon na ci moom de mais bi ñu ñëwee oyof. Baara Gueye li nuyu noonu. jërëjëf Mbacke amoo jot waaye lii doo ko tan xam lu mu doo ko tan xam lu na lool waaye bi mu la gisee bari na lu bari lu déchargé wu ci moom jërëjëf Mbacke da ngaa fekk ñu doon wax ne dañ koy waajal rek mosquée bu es bu espoir ànd ak moom ci tur dëgg ko jébbal ko boromam waaye Mbàkke boo ñëwee sëñ Muntaxa ñëw na màggal gi bi ñu àndee maag moom ci sëñ Muntaxa li ko sëriñ bi wax doy na sëkk xamee ma lu bëgg sëñ Tuubaa ak bëgg réew mi seet loolu mooy benn wax mais yàgg na ko ko wax te loolu mu ko wax moo valable te xalifoon ñaseen ci waawoon sëñ Babacar Si Mansour ñëpp lañ koy jàpp Mbàkke kon boo ñëwee umma bi yëpp ñëw na ñëpp ñëw na diisoon na lool ci ñun waaye biñ la gisee xaw naa woyof te Mbàkke noo ngi ñaan nga ñaan ci barkeb sëñ Bara ñaan ci barkeb weer wi soxna si feenu mu jëm bu mu fa gis dara du ko naqari noonu la koy ñaan jërëjëf Mbàkke